mbokk assalamu alaykum sant len gërëm len ci and bi ak sen kàddu xibaaru digg bëccëg gi eh, ci altine ji yamoko fukki fan ak juroom ci wéru novembre dañu koy door ak tolluwaayu mbas mi ñu dem ministère and ci ci ak docteur Babacar gey mu indi ci ay leer. tay ci bës bi yamox altine fukki fan ak juroom ci wéru novembre ministère de la santé et de l'action sociale jot na jot résultat yu tollu ci junni. ak ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent ya nga xam ne def nañ ko si yooyu le ñeenti kaa ñoo si dellu si ànd ak doomu jàngoro ba nga xam ne mooy indi feebaru mbas mi si ñooñu le ñaar ñi ñi ngi doon ci ña nga xam ne ñu ngi leen doon topp amoon nañ lu ñu seq ak ñi nga xam ne feewoo nañ ba pare muy ñaari kaa yi nga xam ne kaa contact lañ ñi ngi dëkk si département de Dakar ñaar ñi si des nag kenn xamul fa lañ jëlee feebar bi maanaam kenn xamul ku leen wàll ñaar ñooñu tamit ñi ngi dëkk si département de Dakar ci wàllu topp bi am na ñaar ñi nga xam ne da feebar bi dal nañ leen tey test nañ leen te jàpp nañ ne wér nañ dañ dellu seen njaboot waaye itam ci wàllu topp bi ci jamono bii may wax ak yéen am na ñetti doomu aadama yi nga xam ne feebar bi dal na leen ba loofal leen trop ñu ngi leen di faj fi mu ne nii si bërëbu fajukaay yi particulièrement si sauvetage bésu démb bi tombeex dibéer amul kenn ka nga xam ne fii si Sénégal ñàkk na bakkanam te feebaru mbas bi waral ko journalistes yi nekk candidat ci élection yi dañoo war a jël seeni responsabilité euh, quitté seen profession te bañ a dellu si waat ndax journalistes yi dañoo war a génn ci li nga xam ne mooy langue politique gi euh, ki nga xam ne mooy Bamba Kassé secrétaire général SYNPICS moo daal di xamle lu nu mel moom itam daal dina xamle ni dañoo war a xalaat ci benn loi ngir daal di tere ay membres yu nekk ci parti politique ba noppi di liggéey ci ay direction média euh, direction yu média muy xamle ni bépp journaliste daal di nga libre ngir daal di dugg si li nga xam ne mooy langu politique yi waaye su boobaa rek na nga assumer euh, say responsabilité daal di jóge ci bépp média boo xam ne yaa ngi fay nekk di fa liggéeyee. bu loolu jàllee ñu wax ci lu ñeel politique ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak njiitu réewum Sénégal laata muy doon président euh, di Macky Sall ñoom kat démb doon nañu amle euh, benn jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi di xamle ni daal di nañu amal benn mouvement tuddee ko APR euh, suñu moomeel kii di Rougayatou Bousso mooy initiateur bi daal di na ñëw lu waral ñu daal di taxawal bile mouvement leeral li ak Margué. mais ñu koy waxal moom la amul. ñu koy jàmbaloo di ko xeexal ñoom la amul mais bu ko amee bëriwul parce que léthargie bi bëri na laissé en rade bëri na nit ñi ci boppam lu ñu waroon taxaw di ko xeexal dafa manqué ñun nag ñu yàgg ànd ak moom dara doonul ba mu doonulee dara. moo indi les authentiques de l'APR juddu loolu moo indi tey ji ñun ñëpp ñu rassemblé wu parce que am na ñu bëri am nañu man mii damay liggéey ak moom mais teewul da ngay gis say camarades de parti da leen di bëgg jàppale. da ngay gis ay jeunes sénégalais da leen di bëgg jàppale parce que du APR kese la fi nekkal président de tous les sénégalais la gouvernement bu mu teg bi du APR kese la fi war a mën a nekkal se le gouvernement de tous les sénégalais donc ñu ne léegi nag ñun ñu jël suñu moomeel. ñoom sax daal nañ xamal ni bés ni tey dootuñu nangu kenn di dal ci kaw njiitu réewum Sénégal Macky Sall te ñoom pare nañ ngir daal di nekk li nga xam ne mooy bouclier njiitu réew mi ñu teewlu ki nga xam ne mooy Rougiyatou Bousso ci micro margué. APR dañuy taxaw def bouclier défendre la président taxawal ko ba kenn ku ko nee parce que man am na lu ma gëm moom mooy ku la dóor ma dóor ko dóor yee bëri ak yuuxu yi mais ku la xool ma dóor la parce que ñun tey ji loolu moo ñu yëkkati président balaa nit ki di ko jaar ci ci moom dina jaar ci ñun ba pare parce que ñun am na lu ñu gëm am na lu ñu yëkkati te li ñu yëkkati li tax tey taxul lu ñu yëkkati li démb moo tax démb lu am solo la démb ñun du ñu fàttal ba ñuy ànd ak moom dara amul dafa am nag ñu bëri ñoo xam ne ne bu ñuy ànd ak moom lenn moo leen yëkkati moom mooy les trois choses le palais fauteuil bi big bi signé décret yi ñun ba ñuy ñëw loolu amul dañoo gëm programme am bëgg nit ki muy le président Macky Sall gis fulam ak faydam ak lu mu jëmale Sénégal moom mooy programme am ñu jóg ànd ak moom kon nag tey du ñu dem ba ñu falu am nu ñu toogee am na ñu mel ay nit ñoo di victimiser wu ku jóg dem ci président parce qu'il n'a pas ku jóg ne tey président moom moo def te moom victime la présidence du du du coupable c'est un victime parce que dans tout ça mom yoonam nekku si tey jii am na ñu fi teg ño xam ne ñom ñoom ñoom ñoo taxaw def bouclier. balaa nit di am ci moom accès. ba tey si politique la ñuy desane njiitu réewum Sénégal Macky Sall daal dina xamle ni liste parallèle yi nemmeeku euh, ci Benno Bokk Yaakaar ci élection locale yi euh, yenn rek la ci euh, autorisé ci yenn gox yi ci mel ni diwaanu Bignona ak Kolda nee na lu wees loolu autorisé wul beneen liste parallèle boo xam ne daal dina nekk si biir Benno Bokk Yaakaar. ñu dooree xibaaru tàggat yaram yi ak football qualification coupe du monde Qatar 2022 démb Sénégal doon doon jàkkaarloo ak équipe bu Congo Sénégal moo daal di koy dóor ñaari poñ si zéro Ismaïla Sarr moo daal di dugal ñaari bi yooyu yëpp Sénégal daal dina gën a dëggal boppam ci qualification barrage coupe du monde euh, Qatar 2022 bu loolu jàllee ñu wax ci làmb Balla Gaye 2 ñeenti mbër yu ñu gën a ràññee ci làmb ji la war a mm, taseel euh, ku si mel ni euh, Bombardier ak Eumeu Sène ak ki nga xam ne sax mooy Boy ñaar dina war na am ay combat yu dox seen diggante ñu gis ni ko sax ñetti combat yooyu ay revanche la benn combat rek moo ci bees euh, muy ci digganteem ak ki nga xam ne mooy Boy Niang 2 mbokk yi lii lañ leen fi indiloon ci xibaaru digg bëccëg gi di leen jox digg daje ba ëllëg incha allah.